Euh, mbir mi dafa mel ni suñu borom moo ñuy daal di punir wala dafa nekk loo xamante ni euh, doomu aadama yi ci boppam ñoo ko daal di lancé euh, gis nga ñi nga xamante ni faatoo nañ ci coronavirus bi ñu nekk ca bitim réew ñu ci ëpp boo moytuwul daa ñu leen lakk lan la ci lislaam daal di wax tamit ku am li lee di musulman bu am covid 19 daal di faatu naka lañ ko daal di mën a dencee est dañu ko war a sang waaw jumaa yi nga xamante actuellement tamit dañ ko xeex jàngoro gile di Covid 19 annulation euh, bu hajj 2020 ramadan bi yegg si ak tamit jàngoro gile di Covid 19 ak yeneen ponk yoo xamante ni euh, soxal na actualité bi daañu ko waxtaanee ak kile di imam Mukhtar Ndiaye ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala euh, noo ngi wax mbokk yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mhm. Euh, Ndeye Comba di la nuyu di am kontante lool ci dalal bi nga xam ne dalal nga nu ko ci émission bi di toute la ville en la di ñaan yàlla subhaanahu wa taala point yi nga xam ne incha allah rëdd nga ko yal nañ ci lee mën a leeral suñu kéemtalaay kàttan te buñ ci leeral leeralee leeralee tamit na nekk lépp njëriñ ci askan bi incha allah. voilà ñu lay remercier bu baax ci disponibilité bi euh, tey jii dañuy attaquer directement dem ci actualité bi euh, Covid 19 mu nekk jàngoro goo xamante ni la koy joxe mooy euh, coronavirus virus boo xamante ni fi ñu toll nii lëmbee na àdduna imam ay nit yu bare bare ñu ngi ci faatu ña mu gën a attaqué sax moom mooy réew yi ëpp doole gis nga dem na Chine jóge Chine actuellement mi ngi def ay ravage États-Unis d'Amérique mi ngi sonal France waa Espagne Italie ainsi de suite fii tamit Afrique jot nañ ci jàngoro gi ni mu demee nag am na sax ñu naan virus bi dañ ko lancé am na ñuy wax ni sax mbir mi c'est une punition divine maanaam dafa mel ni suñ borom moom moo ñuy daal di punir parce que dañoo dem a dem ba relégué ko au second plan maanaam daal xaalis rek ak wala prestige la ñuy daal di wut ba tax Euh, dafay punir askan wi li koy wane peut-être mooy dëkk yi mu daal di commencer dëkk yi ëpp doole euh, ci wàllum santé ak te actuellement dañoo tële ci mbir mi euh, ban jàngal nga ci am. waaw alhamdulilah balaa may répondre sa question damay njëkk d'abord vraiment remercier suñu autorité sanitaire wu réew. personnel lu santé yëpp wax dëgg yàlla ki seen taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko bi jàngoro ji feeñee ba déeri ci réew mi mm-hmm. ndax bëgg de wax dëgg yàlla noo ngi ciy def ay efforts yu remarquable yu ñëpp ràññee kon noo leen di féliciter d'abord deuxièmement aussi di jaale ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan ci àdduna bi yëpp rawatina fii ci sunu réew mi mm-hmm. muy ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ fi seen bakkan di leen ñaanal yàlla yal yàlla jéggal leen mm-hmm. ñetteel bi aussi di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom kàttan mën lépp ah euh, épidémie bi wala pandémie bi di coronavirus yal na ko teggi ci àdduna bi teggi ko ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp incha allah mm-hmm. euh, question bi nag euh, li ma ci njëkk tontu mooy ñun au regard de l'islam en tant que islamologue euh, en en général épidémie yu mel nii ay nattu la te nattu moom fu mu jógee rek li yàlla wax rek fu foo xam ne sànni na fa ab nattu rek da fekk ni xeet woow war na nañu interroger waat seen bopp xoolaat seen bopp parce que yàlla fu mu sànni ab nattu épidémie fu mu lawe moo xam ñàkk la moo xam feebar la moo xam lakk la moo xam kii la lu mu dee catastrophe bu mu mën a doon rek bu dalee ci aw xeet ay si ay jullit rawatina foofu dañu wax def introspection mm-hmm. xoolaat seen bopp mm-hmm. parce que ñoom noo tooñ parce que mm-hmm. yàlla day wax ci alquran inna allaha la yaxlimuna shay'a walakinna naasa anfusahum yaxlimun yàlla mu ne man du ma tooñ benn jaam jaam yi kay nooy tooñ seen bopp donc lu mën a am rek nit mooy responsable yàlla dafa bind doomu aadama jox ko mission teg ko ci kaw suuf am yoon wu mu ko rëddal ni ko jaar fa yoon woowu nag bu doomu adama demee ba sàggan ba wàcc yoon woowu bëgg tànn beneen bopp beneen yoonu boppam hmm. boobaa lu ko ci fekk rek moom moo ko teg boppam kon ñun en tant que religieux au regard de l'islam au-delà bien entendu des des des causes évoquées par les spécialistes de la santé euh, lii épidémie pandémie loolu punition divine la malédiction divine la bu yàlla di lancé ci biir xeet mais mais daf ko lancé nag hmm. pas c'est vrai mere na leen sànni leen teg leen punition mais biir punition boobu dañ si wax am prise de conscience. Mm. pour nu mën a dellu ginnaaw defaraat sunu toogaay incha allah. Mm, mais lan mooy firndeel ni euh, punition la bala ñuy ñëw sax ci punition bi gis nga euh, ba jàngoro yi commencé am na ay thèses yu jot a jóg ay si ñuy def gëstu ñu naan virus bi euh, peut-être ay kii ñoo ko sànni yu nekk France wala Chine ainsi de suite doon nga dégg thèse boobu que dañu sànni virus bi d'accord ci loolu. waaw ñun en tant que religieux suñu raisonnement d'abord daan mm. d'accord ci loolu sax mais en suñu premier raisonnement ñoo ngi teg ci xam ne punition divine la comme li ma wax léegi mais suñu beneen jàngat ci analyse bi jàngat bu njëkk punition divine la mm-hmm. parce que punition divine boobu sax même yàlla mën na ko lancer jaaral ko ci ay loxo la koy jaaral mm-hmm. ay loxo doomu aadama te tey bu ñu xoolee li ce qui se passe tey à travers le monde gis tey li nga xam ne tey moo ne business bi ci wàllu médecine parce que ci wàllu médecine tey. Mm-hmm. ak les firmes pharmaceutiques ba demee ba ce moo business dugg ci rek dafa yàq lu bëri. Mm-hmm. donc day dem ba nga xam ni ko nit ki daana ko am-amam njëriñam lay gën a gis ca ca la muy def que dootul nekk euh, liggéey boo xam ne daf koy def par par par vocation par mm-hmm. conviction. donc ba tax na c'est pas à parce que li ñuy gis ci àdduna bi tey xam ni. métier moo dem profession boo dem tey am na sa moom business bu nu fay def. Mhm. rawat na rek li tey les firmes pharmaceutiques du monde pour jaay seen garab donc du thèse boo xam ne tam mën nañ ko bañ écarté écarter donc euh, mën na tam am. même loolu buy am tamit peut-être suñ borom moo ko fa jaarale. moo ko fa jaarale pour punir askan pour punir parce que tamit tey toll nañu ci niveau technologie boo xam ni. Mhm. bu avancé tey ci adduna bi. ci wàllu internet wàllu informatique wàllu yëpp tey doomu aadama xarale yi am na fu mu ci toll ci benn niveau boo xam ne macha allah. Mhm. te nag dafa fekk ni nag niveau boobu mu toll yëpp nag nekk ci loxo ñoo xam ni xëy na la plupart ci ñoom amuñu ngëm yàlla mm-hmm. amuñu ragal yàlla donc duñ ko mën a jëfandikoo donc souvent à bon escient comme li ñuy wax ci sens bu baax mm-hmm. mën nañ ko jëfandikoo nag mais tamit ci sens bu bu négatif mm-hmm. ndax science dëgg la mais bu fekkee jëriñ jëriñoo ko ci sens bu positif mën na jëriñ ñëpp mais parfois aussi tey intérêt doomu aadama ak dem ba nit tey beew ci kaw suuf ba nit dem tey ba nga xam ne tey vraiment euh, daanaka comportement yi islaam rëddoon nit wax ko am. Mm-hmm. croyant ci boppam war ko am pour mën a sauver l'humanité tey euh, macha allah yooyu moo fi nekkatul ba tax na léeg-léeg mm-hmm. mën nu jëfandikoo science bi tey ci deneen sens yoo xam ne sens bu positif la boo xam ne day lor sax. am na ñuy andi teesu euh, comme ci jamonoy loot li nga xamante ni suñ boroom demoon na ba euh, dëpp euh, dëkk boobule nee nañ sax dem nañ ba bu ñu tollee ci jamono boo xamante ni grande puissance yi maanaam ñi fi ëpp doole. Mhm. Euh, seen mbébét wala li ñu bëgg moom mooy rek ñu daal di daganal euh, borom ñaari tur ci àdduna bi yëpp. Mhm. Euh, di organiser ay géey praat di gën a am doole di leen dooleel. Mhm. am na ñuy dégager thèse boobu ne comme la daloon ca jamonoy lool dafa la ñuy daal di dundaat parce que comme pour rejoindre ci thèse bi ngay développer muy punition divine bi. waaw xam nga rek parce que day doon ne ci àdduna boo xam ne ku nekk nga. ci est-ce que dafa suñ borom dafa metti wàllum góor jigéen ñi wala ku nekk ku nekk teg nga sa bët tey ci li xew ci àdduna bi ci lu yàqu ci yàqute mhm. ci yàquteeg jikko yàquteeg pas-pas mhm. yàquteeg doxalin ku ne teg nga ci sa bët tey boo gisee tey dañ ne ci benn monde boo xam ni boo xoolee euh, pratique contre nature yi ne cesse de propager fu mu ne noo ngi gën di law ci kaw suuf mhm. nu koy gën a tasaare muy homosexualité lesbianisme mu ñu kenn xamul lépp tey mi ngi gën tasaaroo ci kaw suuf te nit dem ba am sañ-sañu di ko affirmer di wane ni loolu laa. Mhm. te nga xam ne même démb sax as gor même bu doon nekk loolu sax. amul daf koy nëbbatu. Mhm. tey nag dem ba doomu aadama tey bew bay wone appartenance am naan man lii laa di ko wane di koy di ci jaay doole. Mhm. deuxièmement aussi tey boo xoolee tey euh, tey injustice bi ci àdduna bi. arbitraire bi ci kaw suuf. haine bi ci kaw suuf noonante bi bañante gi siisante bi. guerre bi ci am tey ci kaw suuf. Hmm. yëpp tey dem ba nekk di régner en maître ci société bi. bref tey si monde boo xam ni pratiquement toutes toutes les lois établies par Allah subhanahu wa taala dañ ko transgressé tey mais man dama ne xel wu mel noonu ñooñu naka la ñu mën échapper ci mu bëggalum yàlla. Hmm. kon ñun bu ñu jotee si lii punition bi dañu wax sant sax dañu wax sant yàlla ba nu yàlla tegee. malédiction bii di pandémie mhm. parce que kat am na xeet yu fi njëkk njëkkoon jaar mhm. xeetu yonent yàlla lool li fekku leen si yàlla lu mu def daf leen duma effacé leen ci kaw suuf mhm. dëpp suuf sa seen kaw far leen parce que ñaaw téef gën doon def moo tax te nag gis nga punition boobu mu pune woon nitu yonent yàlla lool yi yàlla daf ko def benn non seulement malédiction divine la jëf leen jëppi woon deuxièmement aussi c'est une leçon d'avertissement bu yàlla lancé woon ak toute l'humanité pour wan leen ni bépp xeer wuy taxawee ne ci kaw suuf fa ngay mujjeeg man mooy fii mm. donc ñun dañu wax sant yàlla ba nga xam ne ñun ci pandémie rek la ñuy am pandémie bii nag occasion la tey je crois que coronavirus bii nu dal tey dafay créé waat benn nouvel ordre mondial buñ ci jógee tey te wun ci ay jàngat je crois que dañu amul xel tey buñ ci jógee war nañu jëli jàngat yu bëri tey ci àdduna bi tey puissance yi doon jaay doole ci kaw suuf wane ne tey jii tey tout le pouvoir lépp luy pouvoir tey économique. lu ne def yëpp noo hmm. ko teye woon seen loxo tey te yàlla wan nañu boppam. donc je crois que tey dañu war am benn prise de conscience ci lii nga xam ne tey mooy coronavirus bi buñ ci jógee. nu mën xoolaat naka la ñuy doxalee ci kaw suuf ci àdduna bi. ban jàng nga am imam euh, Mokhtar euh, le fait que actuellement à l'heure actuelle euh, Afrique mooy le continent le moins touché par le coronavirus. par Covid 19 bi ban jàng nga ci am wax nga ko léegi puissance yi nga xamante ne actuellement euh, dañu jaaxle sax dañuy jooy. waaw man jàngat bi ma ci am mooy. peut-être euh, waaw. et le continent le moins touché. waaw man li ma ci jot am. contrairement jàpp comme jàngat sama avis personnel. Mhm. mooy peut-être xëy na jàngoro ji fale la tàmbalee. Mhm. fale la tàmbali tey bu fekkoon yàlla dafa defoon mu tàmbalee fii xëy na musiba dal nu ndax amuñu doole googu. Mhm. tey dafa tàmbalee ci réew yale donc nu koy gis di gis la xew. donc nu teel a jël suñuy matuwaay teel a jël suñuy précaution loolu moo nu ci dimbale. Mm-hmm. man jàngat boobu laa am teel na nañu jël ay mesures bien que sax mesures yi souvent tardive tëj ay rapport beeg yooyu yëpp mais lu bon bon teel nañu fagaru fagaru googu moo tax xëy na te ñee fagaru defuñu ko woon parce que bi fa jàngoro ja ñëwee xëy na jëluñu woon au sérieux affaire bi ba nga xam ne yu bëree tere woon ko woon rassemblement yi stade yi tout ça loolu yëpp. Mm-hmm. ba tax na tey affaire da leen dem ba ëpp doole ëpp leen loxo donc bi Afrique gisee loolu tamit jàngat ci. teel a jël ay mesures gis nga tey réew africain yi mm-hmm. ñoom ñëpp ku ci nekk tey yaa ngi jël pratiquement yaa ngi adopté ay mesures ñenn ñi état d'urgence couvre-feu nañu dem ba ci confinement sax mm-hmm. pratiquement tous les pays africains aujourd'hui tey ont adopté cette posture de confinement. mais mais euh, maanaam jàngat bi est-ce que nekkul ni kon mbon gi Europe wala États-Unis la ëppee que Afrique. mbon gi moom faible question boobu laa bëgg a xam. mbon gi moom faible bu dee punition la lan moo tax actuellement États-Unis gën a souffrir wala euh, réewu Europe yi. ainsi de suite mbon gi moom c'est généralisé le monde entier. Mm-hmm. nattu gi moom faible la lu koy firndeel mooy coronavirus bi épargné wul benn réew. épargné wul benn continent. mbon gi moom fépp la xëy na kat dafa gën a tare fee rek te mm. fii sax dañuy ñaan yàlla sax mu yem fii ci Afrique wax dëgg yàlla dañuy ñaan ñun ñëpp suñu mbébét mooy yal ko yàlla yemale fii voilà mais kenn xamagul fu mu jëm mm. de toute façon daal euh, mbas la mu wàcc ci kaw suuf di punition yàlla euh, tasaaroo ci àdduna bi yëpp nag ndax bu ñuy wax injustice bi moom du Europe rek du États-Unis rek fépp la ci àdduna bi mm. tey foo dem tey yaa injustice n'est-ce pas am arbitraire boo xam ne tey di di di di di noot ay néew di doole di dunde seen ñaq di di maltraité ay doomu aadama en gi guerre guerre bi injustice bi wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo. Mhm. Euh, imaam tamit ci ci ci Covid 19 bi am na ay musulmans yoo xamante ni euh, suñu mbokk sénégalais wala ay musulmans yoo xam ni ñu ngi États-Unis euh, ñu ngi France ñu ngi itali ñu ngi Espagne ñu ngi Iran ñoo xamante ni actuellement on compte des centaines de morts par jour am na si ñoo xamante ni ay jullit lañ gis nga actuellement réew yooyu benn mbir rek lañ mën a def maanaam lakk ña fa ña faatoo feebaroo ci Covid 19 pour éviter wàllaate bi ainsi de suite euh, parce que tamit peut-être am nañ problème sax pour fu ñu euh, suul ñooñu euh, ban jàng nga am ci jullit yi nga xamante ne tey jii dañ leen di lakk ndax dañu faatu ak jàngoro gi lee di Covid 19 lan la ci lislaam wax. waaw d'abord ñooñu faatu bitim réew yëpp. Mhm. ñoo ngi leen di jaal seen ay mbokk. di ñaan yàlla yal na yàlla jéggal leen taxare leen aljana. Mhm. muy lu metti lool wax dëgg yàlla. parce que faatoo feneen fu dul sa réew tam wax dëgg yàlla metti na. Euh, mais gis nga ci wàllu funérailles wàllu néew. islaam moom mosul adopté posture lakk. Mhm. gërëmu ko bëggul nuy lakk ab doomu aadama li mu bëgg mooy incinération islam waxu ko. la mu bëgg mooy inhumation la xam mooy nu gas suul nit. loolu mooy li mu adopté ci wàllu funérailles léegi nag bu nu tollee ci ay circonstances yoo xam ni parce que dañuy wax à darurat tubihu al mahdurat euh, euh, l'interdit est juste autorisé en cas d'extrême nécessité mm-hmm. c'est-à-dire que tey bu nu demoon tey ba nga xam ne tey néew yi bari nañu amatuñu fu nu suul mu nar leen jural ay jàngoro boobaa la ñu tere woon incinération boobu daan ko permettre juste pour mën a teggi lor mm-hmm. mais pour te dire du lu islam gërëm ci tant mën nañu inhumer tant que mën nañu suul am nañu possibilité boobu moom du lu islam gërëm. ba naka gisee autorité yi par rapport parce que ñu bëri. Hmm. dañoo bëggoon autorités yi jàppale leen ñu jot faat foofu ñu indi koor yi am ñoo xam sax faatawuñ si Covid 19 bi mais ñu indi koor yi comme ñu inhumer leen fii mais dégg nga autorité yi lu ñu wax hmm. risque la donc danañ leen jéem a. bàyyi ñu denc leen foofu. waaw gis nga même islam posture hmm. islam ci wàllu woowu ci rapatrier corps d' en temps normal. Mhm. du lu islam gërëm xëy na ñun suñu aada noo ko tàmm rek fu nit faatoo ñu nañ ko yóbbu ci ay mbokkam mais du lu islam gërëm nekkul loo xam ni islaam bëgg na ko islam nu mu bëgg mooy nit ki fa mu na nga ko fa jent gis nga yonente bi alayhi mhm. am benn xadis loolu mooy lan dafa ne asri u bi janaza mhm. fa in taku salihan fa xayrun tuqaddimunaha laha dafa ni bu euh, nit faatoo rek gaaw leen denc ko nu gën a gaaw nu mu gën a gaaw ndax bu dee nit ku baax gaaw leen jébbalal ko ay yiwam yu baax mu dem bu dee koo xam ne ku safaanoon la gaaw leen tàggoo ak moom mhm. loolu la mu ci jublu mu ciy jàngat mooy kon islam non rapatriement la bëgg parce que ku faatu rek mu ne gaawal denc bu neen nit ki faatu na ki suba si nee na bu mu yendu bu faatoo ci ngoon bu mu fanaan mhm. ça veut dire kon kooku day dafay empressé wu pour nu jenc donc rapatriement si boppam en temps normal islam du lu mu gërëm xëy na fii nag sunu affection sunu émotion. Mm-hmm. moo tax ñuy bëgg toujours nit bu faatoo nañ ko yóbbu ci ay mbokkam. Mm-hmm. n'est-ce pas dem ko kii ñaan di ko ñaan ko fàttaliku. Mm-hmm. ndax aada la rek bu fi sax. mais ce n'est bu fekkee nag ci en cas surtout nag de pandémie. foofu moom l'islam interdit fort mais il est fortement recommandé. di rapatrier néew ci en cas de pandémie en cas de pandémie fu nit faatoo nan ko fajee ndax lan ndax pour éviter propagation maladi bi pour éviter ay yeneen cas de contamination kon bi ministre bi waxee cas bu mel noonu ni vraiment ñi nga xam ni faatu noonu ci Covid 19 wax dëgg yàlla pour des pour pour beaucoup plus de précaution nañ leen bàyyi foofu. moo gën ñu leen di rapatrier di mm-hmm. indil suñu bopp yeneen xeeti jàngoro yoo xam ne kenn xamul fu mu fu mu nu jëmee après léegi comme par exemple euh, ñun Afrique tollooguñ foofu ñu fi gis nga Sénégal euh, deux décès rek la amagum mm-hmm. ci Covid 19 est-ce que comme par exemple tollooguñ fu ñuy lakkee wala ainsi de suite euh, comme Pape Diouf wala ku décédé ainsi de suite ci Covid 19 maanaam du ñu ne waruñ leen a sang hmm. sang bi exactement dañ leen war a sang waruñ leen sang lislaam lan la wax tamit ci loolu kenn waru leen sang parce que gis nga ki ki faatu ci mbas hmm. mbas moo xam ne rawatina médecins yi dem nañu ba affirmer ni kii lii moo ko faat ni mu ni mu ni mu doon wàlle ci bi muy dund maladie bi nekk lu contagieuse bu faatoo tam noonu lay continuer di wàlle bu nee ba médecine affirmé loolu te effectivement loolu moo am ci ñi ma jot a déglu hmm. donc bu fekkee day wàlle en tant que néew kooku islam li muy wax ne ñëpp bil seen précaution nan ko bàyyi ca loxo ña nga xam ne mooy autorité sanitaire yi nan ko doon sàmmee seen bopp ban koy traité mhm. nanu ko jël ci noonu def ko ci ay housse mortuaire comme ni nga ko gisee tey en Europe mhm. def ko ci housse mortuaire tëj ko def ko seen produit yooyu fexe nun ko defaree noonu daal koy teg ju léegi sax moom mën na am mhm. ndax te ju léegi buy am sax à distance lay doon mhm. dañuy taxaw fale imam ba taxaw ne te groupe bu restreint rek noonu ko bàyyi noonu bu ko defee imam bi jullee ko bàyyi ko seen loxo ñoom ñu jenc ko lu mel ne tey ay agents sanitaires yi service d'hygiène yu mel noonu xam ne yor nañu ay jumtukaay ak matériel yoo xam ne daanu ci aaru ba dunu loru mhm. donc ku mel noonu noonu lañ koy def parce que ki faatu ci mbas muy wàlle ak tey ki nga xam ne tey dafa dee ba nekk en état de comp décomposition ñooñu noo bokk àtte tey ñooñu kenn du leen sang parce que dañuy bañ mbir mi law. Mm-hmm. wàll ñeneen. parce que mm-hmm. islam wàllaate boobu lay bañ. bu gisee yonent bi alayhi salaam di wax ci xadis ba mu ne bu fekkee taawun taawun euh, mbas dafa déclaré wu ci benn réew bu fa kenn dem. Mm-hmm. bu fa kenn dem. waaw fu mbas am bu kenn dem ci réew moomu. waaye itam réew mi nga nekk bu fa mbas déclaré woo tamit bu fa kenn jógee di dem feneen xam kon kooku jàngal nañu confinement. Mhm. jàngal nañu ne kan en cas ah. d' épidémie ku ne da nga war toog arrêté dem beeg dikk waaw mhm. kon loolu daf ñu war a jàngal xadis boobu rek bu nu amee dégg-dégg daf ñu jàngal ni kon bu mbas amee épidémie ku nekk na nga toog fa nga toog. war a bañ a déplacé mhm. wu. tey jii bu fekkoon affaire bi ca Wuhan fa mu amoon tey. dès le début dañ ko fa yamale woon kenn bañ a vol yëpp arrêté kon tey duñ toll fii. te li ko gën a yokk tey propager feebar bi mooy affaire bi déclaré wu na foofu mais nit ñi continuer di voyager vol yi di dem di ñëw ku nekk di dem di ñëw mhm. donc loolu moo tasaare affaire bi mhm. donc pour te dire daal euh, ku faatu ci épidémie moom kenn la sang noonu la ñuy euh, posture boobu te même say mbokk tamit du mën a ñëw gis la say mbokk daanu leen jox autorisation nu ñëw mais nu mu gën a tuutee restreint benn groupe bu restreint la ñuy jël nu ñëw taxaw mhm. pas gis bi sax parce que kuy wàlle tamit wax dëgg yàlla too xam day indil daan ni kat seen koor a ngi ni seen loxo lay nekk autorité yi autorité sanitaire yi service d'hygiène ak ñooñu noo koy yor defar ko ñu leen mi ngi nii ngeen taxaw à distance imaam ba ñaari nit ñett nu jullee ko ñaanal ko jébbal ko boroomam en toute discrétion en toute intimité mais am na ñoo xamante ni euh, imam wuñ actuellement ci euh, ci mbas mi ci Covid 19 mais ak mesures yi nga xamante ni jël nañ ko tamit c'est restreint gis nañ ni dëj yi amatul dara amatul quelque groupes de personne ñooy dem. Mm-hmm. accompagner ko ñu denc ko. sanarien mm-hmm. n'a rien ak ñi nga xamante ni euh, dañoo am jàngoro bi ba faatu si. waaw loolu moom xëy na li ko waral sax mooy tey mesures yi ñu jël. Mm-hmm. les mesures euh, arrêté rassemblement yi arrêté tam les regroupements moo tax. Mm-hmm. moo tax ne boo xool tey dëj yi am fan yii yëpp donc dañ koy def en tout euh, intimité nit ñu ndaw bañ a bare ndax sunna la fardu kifaaya la. sa mm-hmm. veut dire que nekkul obligation ci islam ñëpp ànd dem ci dëj ba gis nga néew lépp lu jëm ci moom sang gaag taxawu baag. jenc gaag lépp loolu dañuy wax far fardu kifaaya la. sa veut que. bu amee quatre cinq personnes ci mbo ci communauté bi bu ko taxawee rek wàcc na nga ci des ñëpp. Mhm. tey kañ la doon nekk bàkkaar ba fekkoon ñëpp doonu seetaan néew. Mhm. boobaa bàkkaar lay doon ci communauté bi yëpp. mais nag fardu kifaaya la. mooy bu amee benn groupe. ci mhm. communauté bi bu dem taxawee ko bu dem taxawee ko. yóbbaale ñëpp. donc loolu moo tax. wàllu dëj il faut itam nu leeral sénégalais yi loolu xam ne dëj soxlawul adduna bi yëpp ku nekk nga bëgg hmm, parce que instant bi ñu bëri mënuñu accepter loolu rawatina nag ci circonstance yu mel nii tey hmm. tere nañu rassemblement tere nañu regroupement donc tey ku mën faatu même sax bu dul ci covid bi sax mais nanu respecter les mesures parce que bañ vraiment affaire bi law hmm. voilà beneen ponk bu am solo tamit euh, imam euh, gis nga ci mesures yu ñu jël dañu daal di tëj jumaay hmm. euh, julli àjjuma gis nga ni mu sacré hmm. ak jullit yi ni ñu ko fonkee actuellement amul mu nekk lu doy waar loo xamante ni ñenn ñi sax d'accorduñ ci parce que punition divine bi su ñëwee encore ñu ne comment se fait suñ borom peut-être punir ñu ñu daal di Euh, euh, retourné waat tëj jàkka yi euh, àjjuma ji vendredi yi kenn du dem julli naka gisee mesure boobu nga xamante ni jël nañ ko di fermeture mosquée yi fii ci Sénégal. waaw fermeture mosquée yi man sama regard wax naa ko dès le début du toute façon man suis euh, parfaitement d'accord ci ñu tëj que parce que mesure bi aussi lañu tere woon waxuñu ciblé wuñu ni jàkka yeeg jumaay la ñu tëj mais dañu ne dañu dañu interdire lépp luy rassemblement fépp fu nit di di dajaloo. waaye jumaa yi lañ njëkk a tëj de. waaw waaw mais qu'importe sax de toute façon man. Mm. sama posture mooy parce que cause bi ñu évoqué mooy. Mm-hmm. fu regroupement am fu rassemblement am nanu moytu pour affaire bi di propager wu di lor ay nit donc. bi mesure boobu amee parce que bi ñu woowee ñun en tant que membre euh, euh, bokk ci euh, collectif des imams et oulémas du Sénégal. Mhm. expliqué nañu clairement cause yi lan la ñu wax dëgg yàlla ay jullit dañu tëj jàkk gënaluñu ay sénégalais lañu dañu xam jàkk xam juma am seen yor responsabilité mais dañu toll ci phase boo xam ne il fallait mhm. que vraiment nu jéem a jël ay mesures tëj. day parce que c'est des lieux yoo xam ne. am ñoo xam ne au début dañ ko jàppee woon xeex diine gi. non non man man man man mhm. kiiwuma si côté boobu moom pour man du xeex diine. Mhm. mais dafa am loo xam ne gis nga euh, gis nga bakkanu doomu aadama islaam dafa nan ko sàmm. dafa am lu ñuy wax daruriyatul xams muy cinq piliers yoo xam ne islam dafay nan ko sàmm. Mhm. nanu sàmm bakkan sàmm diine sàmm xelu doomu aadama sàmm alal sàmm honneur nit. hifzu nafs nag muy sàmm bakkanu doomu aadama préserver la vie humaine dafa nekk lu sacré ba tax na lépp loo xam ne gaar na tegu na pour mën a sàmm bakkan rek islam daf tey ànd mhm. te nag tëj jàkka yi dañu pour sàmm bakkanu doomu aadama yi la pour éviter affaire bi propagé wu te suñu jàkka yi c'est des lieux yoo xam ne. mais est-ce que mënuñu woon a bàyyi tamit imam ñu continuer parce que wax nga ko sànq punition divine la. Ah. Euh, dafa laaj mbir nit ci jéggalu dellu si suñ boppam. punition divine pour mu jégg jéggal mais est-ce que loolu ànd na tamit ñu jël li gën a sacré ci ñun en tant que jullit wala. mais bu fekkee li gën a sacré ci ñun moom moo nar indiwaat suñu musiba kon mhm. mais loolu beneen problème lay indi. bu fekkee dañu topp wàllu sentiment est-ce que tamit mënu woon jël ay mesures comme sa teg ay di d'hygiène ci buntu jumaa yi vendredi même bu fekkente ni sax ñëpp mënuñ julli ji mais ñu bàyyi benn mbooloo quand même daal di dem julli ji ñu taxaw euh, defar ay saabu antiseptique et tout. waaw loolu am na ñëw ñu laalal la sa loxo am na ñu waxoon loolu. ñu julli quand même. waaw ajuma ji am na ñu waxoon au hmm. moins mën nañu jël ay mesures. Hmm. fexe nanu nanu mën a jullee mais comme peut-être li ñuy wax nii. Hmm. comme mesure yi jël takk der yi tas leen. ci mbedd mi feebar bi lu muy bañ mooy dajaloo wala tampaloo. Hmm. te comme yekk yi nag dafa bokk ci sart yi. waaw nanu ranger les sàpp yi ñëpp yemoo. loolu la bëgg. Hmm. parce que am na ñoo wax naa nañu julli à distance comme ni ko gisee ci yenn vidéo yi. mais loolu islam bëgg ko. ay sàppe bu ñu ko taxawal dafa am sartu sàppe mooy sàppe yi dafa war a euh, lëkkaloo. donc loolu doon nañ ko wax. mais mu gi sax ña ko waxoon sax dañ ci mujjaat génn bañ leen convaincre deuxièmement aussi euh, ci wàllu euh, cet gi mhm. xëy na teg ndox saa bu ñëpp raxasu seen loxo balaa ñuy dugg xam nga ñun Sénégal dafa am lu xam ne mooy sunu problème ñu ñëpp mhm. commencé ci man nag mhm. mooy sunu indiscipline sunu insouciance tey jii loo teg comme loi ni tey tegal ndox fii ku ñëw na raxasu dugg jaar fii di nga am ñu ko contourner donc yooyu yëpp nag pour nag éviter loolu yëpp moo tax mesure ba gënoon kii daal ñu arrêté ni tegal imaam nee nañ comme ça tey jii ñun bi ñu gëjee julli jumaa ku ci nekk toog sa kër ñaan hmm. parce que tey di am nañu ma posé question bi ni boo toogee ñeenti vendredi julli waaw waaw boobu laa la bëggoon laaj lii ku toog ñeenti vendredi julli ñett cas de force majeure la est ñun génnuñ ci diine gi non ngi ci diine gi ba tey lii cas de force majeure la bu ñëw ah, mais l'islam lan la wax bu fekkee ku toog ñeenti ajjuma demoo juma fekk jumaa ja ma ngay taxaw taxawal na nañu jumaa ja waa no ngi nañ jumaa yi mais julli julli julli gi dañ ko arrêté c'est mesure bu général la hmm. bu fekkoon jumaa ja mi ngi dox normal temps normal bi nga daan dem jumaa foofu mu kàllaf mu toog demoo jumaa amoo benn ngant nekk sa itte bopp ñeenti ajjuma kooku moom génne nañ la ci diine waaye fii nag kaala la boo xam ne bu spécial la dafa am lu xew circonstance comme li ñuy wax euh, de Euh, euh, euh, situation exceptionnelle il faut mm-hmm. impérativement. mais man gis naa benn vidéo bu ma envoyé Tivaouane am na ñu forcé dem si jumaa ji julli di ñaan. di ñaan pour suñ borom jéggal ñu loolu naka nga ko gisee loolu. ñaan daal. Mm-hmm. foo ko mën defee baax na. Mm-hmm. tey jii. Mm. c' vrai métti na ñëpp quand même parce que bu doon suñu sagoo moom jàkk yi day fonctionner jumaa yi di fonctionner gis nga julli jumaa dafa nekk farata goo xam ne. farata la jàng dañ ko ñu ñëpp isa nudiyatis salaa min yawmi jumaa fas aw ila dikrillah yàlla ko bu noddetee moom ajjuma moom na ñëpp wuy ji mais nag li ko gën a nekk farata mooy aar doomu bakkan ba bakkanu doomu aadama loolu moo gën a nekk farata au-dessus de tout parce que loolu dafa bokk ci xifzu nafs dañ ko aar ci lépp loo xam daf koy lor mhm. n'est-ce pas ñaan gi fu toog mën nga ñaan yàlla moom dégg na ñëpp fu waay toog mën nga ñaan tey jii xëy na tëj nañ ko metti na ci xol yi mais boo xoolee ba ci biir tam benn avantage mi ngi ci mhm. mooy lan tey ñu bëri tey lan daawul def noo ngi te tey noo ngi julli seen biir kër en famille ànd ak seen njaboot yëpp bu waxtu yu jotee ñu taxaw julli te loolu tamit am lu positif la parce que amuñu ko woon mais est-ce que très rassemblement bi solution la parce que gis nga imam actuellement li am par exemple ca France ñoom teel nañu confiner seen population mais dafa mel ni sax tey jii la ñuy dee gën a yokk est-ce que est-ce que tamit confinement parce que fii peut genre confinement partiel la def. mais confinement bi en France am na am na ay effets quand même. ban effet vraiment am na hmm. effet. parce que nit ñi ñu ngi ñu ngi faatu des centaines de morts yi foofu ngay xoolee mesure bi. Hmm. au moins mi ngi mi ngi tane par rapport ak début bi. parce que mooy mesure bi nga xam ne war nañ ko mën a jël parce que comme day wàllaate di tasaaroo. l'islam da confinement en temps de pandémie. waaw moom laa la wax sànq. Mm-hmm. islam kañ confinement la jàngale ba nii xadis ba mu la. waxoon comme ni ñu tëjee nit ñi nii amuñ droit génn doo dem fenn. doo liggéey doo def dara demee ba tasaaroo moom. pour ñu mm-hmm. jël ay matuwaay moom mooy ku nekk toog fa nga toog mooy confinement bi ma la wax rek waaw. ku nekk toog fa nga toog bañ évi parce que luy propagé wala luy law di dem. Mm-hmm. kenn xamul donc walaate gi tasaaroo jàngoro ji la ñuy bañ. kon léegi imaam yi yéen su ngeen di nodd da di wax nañu julli seen kër. na nit yi julli seen kër ñun moom ñun moom parce que mm. gis naa vidéo boobu gars yi di ko jàllale ci kii bi. mais loolu sax loolu moom du islam gërëm. Mm. parce que biir nodd nodd ci boppam dafa nekk lu sacré. ay mm. kàddu la yoo xam ne noonu la ko yonent bi jàngalee nañu respecté loola. Mm-hmm. même en cas de circonstance sax da nga nodd ko defee ñun ñi mën parce que nodd ilaan la rek. mooy yëgle ni waxtu wi jot na. Mm-hmm. pour indi beneen mbooloo ñëw julli si. Mm-hmm. mais Euh, bu jox waxtu bi jotee nu nodd macha allah bu ko defee ku nekk toog sa kër. toog sa kër di en na hmm. ñaan yàlla lii jële yàlla jëlee ko. mais am na ñuy forcé di dem si jumaa yi ba léegi de. waaw forcé gi daa jaru ko wax dëgg yàlla. parce hmm. que nee naa leen de toute façon comme ñun noonu war joxe le bon exemple ay autorité lanu ay kilifa lañu ci wàllu diine aussi. donc bu demee tamit ba état tamit jël ay mesures mesures yoo xam ne aussi c'est purement sanitaire. Hmm. Hein? kon tamit nañ ko rek vraiment pour tamit joxe le bon exemple. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal imam Makhtar Ndiaye bu euh, mosquée Liberté 6 imam Makhtar euh, gis nga ni tamit euh, dañu daal di annulé. Hajj euh, 2020 gis nga corona lëmbee na àdduna euh, ba màkk ca boppam daal di annuler leneen loo xamante ni jàpp nañ ni moo gën a sacré wala bokk na ci li gën a sacré ci jullit bi ñëpp ñu ngi koy ñaan en tout cas annuler nañ ko ban jàngat nga ci gis waaw mooy li ma doon wax léegi rek gis nga gis nga gis nga mhm. xam nga ay fuqaha u noo fa ne ñoom bu ñu jël décision ci mhm. wàllu sharia wàllu diine dafa am benn jury mhm. boo xam ne composé de cinquante ulama loo xam ne ay borom xam-xam la ñoo xam ne seen xam-xam. Mhm. kenn lam-lameewu ko. ci mhm. sharia mhm. lu état bi di def daf leen di consulter waaye ñoom ba ñu demee ba mu leen consulter ci lu mel nii dañu dañu tëj. parce que Makka Kaaba gi dafa nekk foo xam milieu boo xam ni adduna yëpp a koy fréquenter xeet yëpp a fay daje. donc ci la ñu jël mesure tëj Kaaba gi arrêté lépp comme nag ñoom dem nañu ba jël loolu bu ñu demee ba wax jumaa yi kañ wax dëgg yàlla li gën a sacré nekk pilier loolu pilier julli ci woppam pilier la julli ci mbooloo du pilier mais buñ demee ba aj nekk pilier cinquième pilier de l'islam autorité yooyu dem seen xam-xam buñ toog ñu nanu ko tëjandi ndax jàngoro ji day law donc wax dëgg yàlla wax na yee ñu bëre donc tëj ga nag neexul kenn tey bu hmm. noon suñu sago mosul am ci àdduna man de moom juddoo ba léegi mosuma gis hmm. comme nag am na te cause bi lan la mooy bañ épidémie bi tasaaroo nanu ñaan yàlla rek yàlla gaaw ko teggi mais kon aj bi daal noonu la ren kenn du aj dara du ah, am wala kenn mënul aje nanu ñaan yàlla mhm. xëy na mu jeex balaa booba lii mën a am aj bi am mhm. mais fekkee jeexul aj bi du mën a am mhm. parce que tam diituwaa ah, ko aj bi jamono bi lañ ko waroon a préparer parce que que màkk aussi tey jii bu fekkoon dañu def forcing bàyyi màkk gi mais tey boo xoolee jàngoro ji kon tey la muy rey ci adduna bi kenn du xam lu mu toll parce que màkk ñaata nationalité adduna yëpp parce que amul regroupement bu day noonu ci adduna bi amul benn mbooloo mu day na mbooloo miy ñëw aj boo demee màkk di nga gis bépp nationalité boo mosul gis ci kaw suuf di nga ko fa gis. Mm-hmm. kon nag loolu bu buñ ko ubbi woon day ci période de pandémie bi mais fu ñu jëm. moo tax ñoom heureusement seen seen fuqahaaw yi. bañ demee ba analyser mbir mi jël jël seen ay mesures bien que sax jël nañ ko mais xool la fa nekk kaay ma ngay ma ngay yokk. Mm-hmm. ñoom affaire bi mi ngi leen di sonal de. Mm-hmm. donc nag bu ñu ko ubbi woon nag fu ñu jëm. Mhm. Hmm? ayca mi ngi noonu nga gis ni tamit ñu ngi dugg ci ramadan bi ci weeru koor bi hmm. bala yàgg dara leen ñu dugg ci euh, am na sax ñu naan est-ce que weeru koor bi du ñu ko dàq. Hmm. Euh, ndax mbas mi nga xamante ni xew na ci réew mi ak condition yi nga xamante ni imam gis nga actuellement ni ko sénégalais di dundee dëkk bi metti na trop ndax mesure déjà yu ñuy jël yombul ci askan wi ñu bari di xalaat est-ce que lii danañ ko mën a boole ak koor lan nga ciy wax. waa dégg naa thèse boobu nu koy avancé mais daal je veux dire que est-ce que loolu mën a nekk la waaw ramadan koor ça n'a rien à voir ak pandémie mm-hmm. koor jaamu yàlla boo xam ne c'est personnel nit kee koy def digganteem ak boroomam mm-hmm. te koor yàlla daf ko farataal ci bépp jullit boo xam ni wér nga amoo benn ngant day nekk farata ci kaw sa kaw mm-hmm. kon daal koor ak covid 19 amul benn rapport amul lien bu koor bi ñëwee nanu woor normal toog suñu kër koor ñi nga xam ne islam joxoon na leen mooy les catégories yi nga xam ñoom la islam autorisé woon pour ñu dog mm-hmm. te boo xoolee catégories yooyu en deux parties que leen divisé dafa am ñoo xam daf leen autorisé de façon définitive nu bàyyi koor gi ñi nga xam ne dañoo am feebar boo xam ne c'est allergique seen feebar mënul ànd ak koor comme yenn façon diabète yeeg yu demee noonu mm-hmm. am ci ñoo xam ne seen age mayeetu leen nu am kattanu woo mm-hmm. ñooñu moom dañ dañ leen dispenser de façon définitive mais ki nga xam ne dafa feebar feebar simple xam ne mën na ci wér kooku bu wéree day fay. Mhm. femme bi nàmpal bu nàmpalam jeexee day fay ki ëmb bu demee ba ngàntam jeex day fay ki tukki dogoon kooram kooku tam day fay. Mhm. donc koor ramadan. sa n'a rien à voir ak. crise sanitaire ni mu toll nii surtout Europe nii ni ñu sonnee waa France Italie suñu mbokk. amul benn rapport jullit yi nekk foofu. amul benn rapport nanu hmm. woor daal. kon dàq koor gi ñuy dàqoo loolu mënul nekk. mënul nekk nanu woor normal amul amul fu ko suñu borom waxee. mais d'ailleurs fi mu nii Chaabaan bi nit ñu bëri ngi woor sax hmm. weer bi nekk nii hmm, Chaabaan bi. mais ñu bëri dañu doon woor. ñu bëri ngi woor leen di jeudi temps yi surtout moom koo bëri koo laaj benn rapport amul benn rapport nu ñu bàyyi itam lu yomb tamit. toog hmm, souvent dañuy bëgg yombal. affaire bi trop mais koor gi yegg si nit ñi war a ñëpp kon seen kër la ñuy naafila toog defe ko ci kër yi parce que ngànta am. gis nga islam li ma wax sànq rek. Hmm. addaru euh, euh, euh, addaruraat tubiihu al mahzuraat. Hmm. gis nga ngànt fu mu amee rek. dañuy xam ni ngànt la parce que islaam dafa islam. bu fekkoon dafa nekk diine goo xam tey day contraindre nit ki ni ko par force nga def. mais problème am. koor. bu fekkoon dafa ni ñëpp woor leen. mais hmm. dañuy sonn mais am na cas d'extrême nécessité. ñu génn ki feebar. Hmm. nanga julli bu fekkoon ne que ni par force nga def ko no am problème mais am na ñoo xam dafa ni boo tollee situation bii feebar julleel ni defeel nii defeel nii defeel nii ay. dafa am tamit ay conditions pour def ko. wàcc na la zakkaat boo ko mënulee wàcc na la. Hmm? donc dafa am cas yoo xam ne bu ñu fa tollee fokk ñu xam ni euh, euh, ngant moo am tey li ñu tere li ñu araamal ni nit ki jullit bu lekk yàpp mbaam xuux wala yenn mhm. façon kii yi mhm. mais boo demoon ba loru xam ne loolu rek a fi nekk dee moo ca sës mhm. nee na laal permettre nañ la permettre ko juste pour nga mën a nga mën euh, a bañ a bañ a dee bañ a dee bu ko defee te boo amee leneen bàyyi ko loolu la mel kon daal ñiy xaar ñu pousser ramadan bi loolu moom mënul nekk waaw ñooñu moom mënul tëdd moom moom wax dëgg yàlla. ak lu mu tar tar tar waaw waaw lu mu tar tar tar daal. koor mm-hmm, mm-hmm. moom daal wax dëgg yàlla ponk la boo xam ne si ponk islam yi la boo xam ne yàlla dafa sacré nag. Mm-hmm. donc euh, pas question euh, nu naan dañ koy reporter wala noonu loolu moom moom islam gërëmu ko. voilà beneen ponk bu am solo lépp day bokk ci Covid 19 bi gis nga bi mbir mi amee euh, am na ndimbal bu ñuy wax ni état bi daf koy dimbale askan wi ay vivres yu ñu war a séddale naka nga gisee peut benn ci. ci mesure yooyu lay jàppale gu ñu war a jàppale askan wi parce que actuellement euh, sonn nañ ak Covid 19 bi la même bu kaa yi. sax activité yëpp a taxaw. loolu moom wax dëgg yàlla lu may lu la. Hmm. d' abord di ci gërëm chef de l' bu hmm. baax a baax ci initiative boobu mu jël. xanaa yow APR nga bokk parce yaa ngi def marron beige. non man du ma kii man man man suis apolitique quoi je suis apolitique. Hmm? donc. maa ci gërëm di rafetlu tamit wax dëgg yàlla taxawaay boobu posture boobu. ba d' abord posture bi may mi amee woo na ñëpp waxtaan ci ñoom parce que am yoo xam ne c'est des questions d'intérêt euh, national ñëpp si bokk. Mhm. donc mais lu tax woowul ligue des imams et oulémas du Sénégal kuréel gi nga bokk. waaw ñun daal jàpp nañu daal si lañu bokk waaw parce que mënuñu woo ñëpp. ah politiciens yi lañ woo bàyyi leen. kenn mënul woo ñëpp. waaw kenn mënul woo ñëpp mais nag waroon nañu woo oh, ligue euh, euh, imam et oulémas du Sénégal léegi de façon de façon naa d' mm-hmm. li mu li mu li mu si associé ñëpp. Mm-hmm. associé ñëpp. opposition opposition bi wax dëgg yàlla boole ci ñëpp ku nekk indi sa xalaat. deuxièmement tam may rafetlu tamit geste solidarité bi nu def vivre yu nu jël aide yi pour aider ko les populations. non aide yooyu doyul de Imam waaw parce que tamit waa doyul. parce que Sénégal tamit boo xoolee naan ñi am ñi duñ am. boo xoolee Sénégal niveau de pauvreté bi dafa jéggi dayoo. Mm-hmm. ñëpp mën nu am loolu moom ñëpp xam nañ ko. Mm. moo tax ma ni barki ma wax tamit mm. affaire bi tam du état rek. Mm. état ni mu tey les bonnes volontés dañu jóg. Mm-hmm. ñi yàlla may tamit wax dëgg yàlla as tuut dañ ci dugal seen loxo parce que xeexu la lii xeexu citoyen yëpp la war doon tey koñ bu nekk tey bu fa borom alal yi jógee tey mën a dimbale ñi nga xam seen loxo féeti euh, euh, euh, lu la vivre yi dëgg yàlla te man bu doon sama soog nekk en mm, boo xam ne di ko dimbalee ñi nga xam ne ay néew di doole lanu mm. wax dëgg yàlla lu may rafetlu la. mais est que loolu tamit du imaam du ay turu ndimbal ndimbal nii rek. parce que tamit li ñuy li ñuy jox nit ñi ay benn saako ceeb nga gis famille boo xam ne pratiquement ñi doon waaw ku ni parce que da ngay gis mais da gis famille boo xamante ni pratiquement ñi fa nekkoon ñëpp ñëpp seen activité taxaw na secteur informel bi ñëpp dañuy xëy toog kenn mënatul xëy dem liggéey chômage technique bi ainsi de suite famille boobu nga ñëw indil ko benn saaku ceeb benn eh, li ñuy wax si wàll nimbal du mate mhm. nimbal moom lu lay dimbalee la rek dafa am lu lay kii rek waaw lu lay jàppale jàppale la rek mhm. dimbalee la parce que tamit kenn mënul tamit satisfaire ñëpp lu ñu lay jàppalee la de toute façon moo tax ma ni mhm. lii dafa war a nekk question boo xam ni wax dëgg yàlla borom alal yi ñi am ñëpp ku nekk ndax yàlla yàlla wërsëg gi daf ko tasaare ci kaw suuf jox ñii xañ ñii donc ñi mu jox nag ñoom tam nañu am sens vraiment mën a. ah pourtant am na ñu commencé hmm? jox euh, dugal si force Covid 19. waaw na borom barke yu jox jot a joxe. pour jàppale état bi ci paj mi foofu baax na. Mhm. baax na tamit ci tamit échelle bi gën a ndaw tam ci koñ yeeg ci gox goxaat yi tamit wax dëgg yàlla parce que Sénégal boo xoolee loolu mooy suñu aada fii loolu la xam def lu baax. da ngay xool rek tey koor. Mhm. dëgg yàlla ku nekk ngi jël sa suukar jël say ceeb def sa oto yóbbul ñenn ñi nanu continuer élan de solidarité boobu rawat na ci koor gi nu jëm tey ku ci yàlla may dara defal sa oto ba mu fees ak sa sa say ceeb say dugub say suukar say lépp dem ci gor yi nga xam ne mën nu laaj mm. al fuqaraaw yi mm, mm. nga dimbali ko ngir yàlla tax parce que gis nga Sénégal dafa bëri faqiir gis nga alxuraan sax dinañ xool aaye bi nga xam ne dafay jox les ayants droit de la mm-hmm. zakat mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo asaka mm-hmm. nee na ñoom di ki ci gën a euh, euh, pri par ordre prioritaire la innama sadaqatu lil fuqara yi ñi nga xam ne noo ngi nii tey bu rafet tey portable di sagu te fekk la yàlla xam doy na sénégalais sagu la xam mais fekkee da nga xool nag ci comportement toujours naan wooy mi ngi solo mi ngi nangam kii soxla waaw kon faqir yooyu nga xam ne ay gor lanu te mën laaj yàlla nee na ñooñu ku xam seen problème ba faj ko. Mhm. am nga dara ju gu rëy ci man. kon euh, am ñoo xam ni bu àdduna dee métti métti dina mos a taxaw laaj kon nag tey ñi nga xam ne ay bonne volonté la ñu te ni mu daan amee démb gis nga ñoo xam ne tey fii ci réew mi yàlla may na leen. Mhm. noo ngi def lu baax te ma sàmba yëgul ma dem ba yëgul. bu koor ñëwee nu yëpp camion ba mu fees def ci ceeb suukar lépp guddi wër ci kër yi nga xam ne war nañ ko fa yóbbu. parce que ñun imaam ci jàkka yi da gis kër yoo xam war leen ni kii boroom kër gi sagu rek la. Hmm. yaay xam ni kii si ay situation la nekk. kii mérité na ngay jëkk zakat di ko jox nu dimbale leen. kon échelle na nekk ci échelle bi gën a ndaw naka état di defee fee naka ñeneen ñi tamit jàppalante nu mun ko def. léegi euh, fayum facture tranche euh, sociale bi nga xamante ni état bi euh, nee na da koy fayal askan wi pas sax ci facture yi ñu jot mais ci facture yi ñëw muy ndox muy courant naka gisee loolu. même waaw loolu yëpp dafa bokk tamit ci ci élan solidarité. bi may mais néew na bi. waaw parce tamit ñu ngi ñaxtu. waaw parce que tam boo xoolee tamit baadoole yi yan ma yàlla baal sax si kaddu gi. ñi nga mhm. xam seen loxo jotul seen ginnaaw. Mm-hmm. xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Mm-hmm. Euh, ñooñu wax dëgg yàlla tranche boobu ñu ci ëpp foofu la nekk. Mm-hmm. boo xoolee bi ñu defee affaire bi yëpp nga xam ne quinze mille ba je crois. Euh, quinze mille treize mille. Euh, ba côté boobu daal parce que ñoom li ñuy consommer xëy na. demeewul noonu trois mille sept cent voilà xëy la télé la. frigo télévision yu demee noonu daal. Mhm. mais nuroowul tey ki nga xam ne tey këram tey ma fa yore trente climatiseurs. di am ay factures cinquante mille cent mille kaw. Mhm. donc esprit boobu tamit ni ko wute fee tamit wax dëgg yàlla tamit ah, lu rafet la daal. am na ñu ne dafa néew de imam. ah baax na. ah ku lay dimbale kañ tamit wax dëgg yàlla moom man. je crois que daal mais si si ñoo xamante ni ñëpp la seen activité taxaw. muy borom doole yi muy néew di doole yi. mais instant bi ñëpp la seen activité taxaw. ba parce que affaire bi bi ñëpp la daal di. waaw lii daal moom ñëpp la laal ñëpp la laal. la naan kii la kii. waaw mais de toute façon. Mhm. li xool rek mooy mooy geste bi comme def na geste daal jëmale ci askan wi rek. geste mhm. de solidarité. ci moment bu ñuy wax ne ah, am na yeneen réew yoo xam ni fii Afrique état bi bi fay na facture ndox yi entière facture courant yi ainsi de suite ba fay sax loyer gisoo ni loolu dafa néew tamit ci li président Sall jox parce que fu mu ne nii pour le moment lii la ñu a def mhm. mesure ni ko jëlee nii mhm. gis nga lii la ñu a def parce que des na ci kanam tuuti mhm. xamaguñu fan la jëm tey buñ demee ba date yu ñu joxee ay 4 mai ay 4 mai yooyu te fekk affaire bi continuer nag kon loolu moo tax nag ñu bàyyi réserve on ne sait jamais tey affaire bi continuer nan lay mel. yow daal imam dafa mel ni yow APR nga nga bokk ah yow. <laughs> mais ñu ñu laajaat la tout juste dernière question parce que temps bi dab nañu euh, ci problème de mœurs yi nga xamante ni am na fi euh, gis nga scandale Diop ISEG gis nga scandale Dame Amar euh, Iba Thiam ki nga xamante ni faatu na fan yi ci wàllum drogue ainsi de suite ban jàngat nga ci am bala ñuy tàggatoo. waaw man loolu moom toujours li may wax mooy question d'éducation la rek. Mm-hmm. vraiment nañu géem a fexe yar suñuy mm-hmm. njaboot. yar suñu njaboot mm-hmm. yar suñu askan. yar suñu askan. ci ay valeurs yi nga xam ne moo nekkoon ci réew mi démb ñu yar leen ci mhm. parce que aussi gis nga éducation de base mooy lépp ci nit bu ko nit ki ratee rek daanaka kooku moom moo bàyyi ma nooy am mhm. donc acte yi ñuy gis tey xew ci àdduna bi ci réew mi la tey fondamentalement question éducation la kon tey nañu dellu yar suñu njaboot te as ay jullit na yoo xam ne aussi da nga ko war a jommaleel sa mais confinement imam d'accord nga ci waaw wala déet euh, comme ni ñu tëjee waa France ak. xam nga loolu loolu ci loxo autorité sanitaire yi tey bu demee ba autorité sanitaire yi tey tey ñoom tey ñoom la ñuy déglu. Mhm. ñoom tey fu situation bi toll rek tey la ñu nooy mhm. xam situation épidémiologique bi fu mu toll ci réew mi. tey bu demoon ba kaay yokku tey ñoom ñu exiger parce que dem na tey ba gouvernement bi tey ñoom lay déglu. Mhm. parce que mbir mi seen loxo la nekk. ñoom tey bu ñu demoon ba ni tey l'unique alternative mooy nañu def confinement mais confinement la def. pour mën a sauver population bi. population bi ah am na sénégalais yoo xam ne duñ ko accepter de parce que koo tëj di nga ko jox lekk jox ko naan fayal ko location euh, fayal ko lépp ah. ah. mais tàmbali na tàmbali na ndimbal gi tàmbali yow daal marron beige nga après dinañ gëstu imam ma bàyyi la nga tàggoo auditeurs yi. waaw alhamdulilah di rafetlu waxtaan wi di rafetlu tam question yi macha allah. pour mm-hmm. édifier sénégalais surtout di ñaan mm-hmm. yàlla rek. Mm-hmm. Euh, comme ni ma ko waxee ci début bi. Euh, féliciter les autorités sanitaires. sant leen bu baax ki seen taxawaay. ñaan yàlla tamit di sant ñëpp tamit nañu ànd ñaan lii nga xam ne mooy Covid 19 bi gane si Sénégal. yal na yàlla jëlee. amiin jëlee ko fii jëlee ko tam ci àdduna bi yëpp. dimbali nu nag may nu jàmm ak tawfiq nu defar xol itam yéeneenti jàmm ñu ñëpp bu ko defee incha allah yërmande yàlla mën a wàcc sunu kaw salaamaaleykum. waaw ñu ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax imam Makhtar Ndiaye euh, nekk ca mosquée bu Liberté 6 di ko remercier bu baax a baax ci disponibilité am di remercier Léon Paul Mendy ci euh, technique be réalisation bi di remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 émission bi nag mën ngeen a rattrapé wu ci suñu euh, chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www point rewmi point com ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité. jaa ngeen jëf